enseignants ah, parce que foofu aussi des fois li ñu leen di critiquer bari na trop ci problème de niveau surtout waaw loolu dama koy poser mais li ma lay wax man historien laa dama lay indi laa diagnostic bi gis nga ñun bi ñuy formé nous on était à l'école nationale des éducateurs parce que nous avons fait quatre ans après brevet nga xam ne da ngay def une certaine mise à niveau am ñoo xam dañ doon bac dañu am bac xam nga kon ñoom réglé nañ ce qui ñëw nag def une année de formation une année de formation nous quatre donc enseignants yu njëkk yi ils étaient très bien formés waaw ouais. dañ leen doon segg ñun rek bi ñu commencé dans les années 88 mais on était des milliers de candidats et sur ces milliers de candidats nous on prenait 10 cette sélection était rigoureuse mais bul fàtte ne waxoon naa la fi jom sien en 90 ñu neen na ñëpp dugg mais buñ ne na ñëpp dugg nag mais dañ koy ubbi vraiment ñëpp ñëw dugg on avait réglé le problème de l'accès mais qualité bi amul woon. parce que dañu ne woon sax enseignant bi mun nañ ko former en cinq jours ce qui est archi faux. bien vrai que en Allemagne da ngay toog ak Mamadou Ndoye mu ne la mais attends Allemagne bi ñu bëggee ñëpp dugg dañu doon jël des mécaniciens des chauffeurs ñëpp ne leen mais mun ngeen jàngale ñëw leen ñu encadré accompagner leen mais fii nag dañu jël des gens c'était les volontaires. te loolu yàgg na am nag système bi jël sax ñoo xam ne amul benn formation fii da fi dégg ñu ne la aile de dinde di nga fa dégg ñu ne la MOSA c'était les maintenus sans ordre d'affectation mais quand on a commencé avec le projet des volontaires on a pris des gens ñu leen di former en 45 jours après ñu ne loolu mënul nekk nañ leen au moins élever niveau bi yóbbu leen niveau bac bu ñu leen yóbboo niveau bac defal seen référence de formation maanaam allo bi di bindal mu nekk ci ab diir moo tax ñu jógee ci EFI dem ci CRFP yi mais mutation am na d'accord naa ni qualité amul woon parce que li ñu doon viser dans un premier temps boo jëlee suñu premier programme qui s'appelle le PDEF l'accent dañ ko mettre sur l'accès na ñëpp dugg alors léegi nag boo jëlee beneen pedef beneen programme bi muy la paquet entrée bi c'est l'amélioration de la qualité parce que ñëpp xam nañ ne tanu njàng mi des na. Mm. mais loolu nag tey bu fekkee dañu jël formation bi yóbbu ko niveau bac mu nekk aussi une sélection ba pare ñu former la sur neuf mois loolu dina am. beneen qualité bu ñu ñëw mais am na leneen lu ci am mutation dafa am ci CRFP yi dama koy wax parce que man dama dem à Lyon dem Grenoble xam les UFM Alsace Lorraine ñoom ñëpp xam naa seen UFM yi nan la ñuy recruter niveau maîtrise la lay jëlee bu ñu la jëlee niveau maîtrise pour nga enseigner à l'élémentaire on t'appelle professeur d'école niveau maîtrise la lay jëlee mais gis nga tey nos CRFP attention nos élèves maîtres amuñu bac de ñu ci bari am nañu maîtrise kon CRFPE yi war nañ leen réformer xam ne c'est des centres universitaires